murdiatun way nampaleel ngir jirimam ba nga xamee ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jirim la way nampal yëpp bañ koo jël ndax jirim kat mën naa fay waaye du neexale xultu ñu waxul na wax na ñoom jigéen ñi ne maa fil yatiimi dédd nekk ci jirim xanaa ak kooman naa ci ñun de jirim daal buñ ko jëlee duñu am koom bu ñuy bu ñuy fayee it duñu neexal waaye fekk xamuñ ne jirim boobu waaw wurus ab jirim la ku ko jël nga lépp faatatu dikkal na ko min aali saadin jógee ci ñooñ saadu fataatun ak jànq joo xam ne xad abada bañ na ko arudaaw waaw way nampali way nampali way way nampale yi li faqri a ngir ñàkkam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi doon dañ ko bañ ndax lan ñu bañ ko ndax moom jirim la waaw dana fay ga waaye nag amul bàyyi di nakk neexalal naka noonu alimatu diya jigéen ñi nga xam ne ñooy nàmpal seen doom yëpp dégg nga bañ nañ ko moom it ndax ñàkkam amul dara kon ñaar ñu bañ la yàlla boole ardaatu nàmpal na ko libaana ay soom fasafat ha mu nandal ko dégg wa baniha agay doom albaan ashaw gatti albaan hunna seen sooyi ba nga xamee ne xalimatu saadiya nampal na soom yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko nampal seeni sooyi nampal doomami sooya ndax ba mu jëlee yonent bi sallallahu alayhi fekk mu ngi amoon doom joo xam ne ma ngay jooy ngi teg mar waa ngi teg xiif ak sonn waaw ba mu jëlee yonent rek ci la gërëm nga am soow mu fees tap ci batteya mu naan ca ba desal jox jëkkëram mu naan doom ji daldi naan waaw xalimatu saadiya ngoogu maana na bi aati maana bayti annaane moom xalimatu ardaatu nampal na yonent bi libaana soom jamu def na ko jamu bi hasabi tawaqqu'il awqaat yi ci kem waaw mu indi ko waxtu yi ay waxtu waxtu la ko nàmpal moo tax mu ne nàmpal na ko ay soom wa minal mu'jizaati bokk na ci kawteef yi annaa ne moom kaana nekkoon na fi gaayati maa yakunu ci doyab la dana ko nekk minhu zaali ci ak ràpp ak ak ak làpp muy jeex li siddatil jihadi ngir tatak kattan wal juuya xiif fala ma axasatu ba mu jëlee yonent bi nag faada ci la bëbbu sa dee ñaari ween ya labanan ci soow hatta kaana ba mu nekk laayar doon du namp minaa ci alimatu illaa mahalan waahidan lu mooy benn soow bi mahalan waahidan lu mooy benn wen rek benn barab mina sadija ween waa wala xaru beneen bale yaa xiin yeen la mbokkam alazi bi nga xam ne tur de mu koy nampal alimatu saadiya ñaar la doon nampal ba mu jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa soow mu fees tepp te moom kat ku làpp la woon jeex lool ndax xiif ak son waaye bi mu jëlee yonent bi ci laam soow moom gëlëm ma mi am soow mu jox yonent benn ween boobu mu nàmp ba suur waaw mu jox ko beneen ween mu bañ mu ngay jàngale mandu xaat ndax mbokkam mi ngay xam ne moom lay nàmpaaleeg moom moom moom beneen ween wi moo tax bëggul koo nàmp wala axaru beneen ween wala axi ñeel na mbokkam alisi bi nga xam ne tur dina dana ko nampal xaalat ci la wax ne kuntu nekkoon naa man alimatu isa atito bu ma ko joxee sadiaqi weenu mbokkam ma yaa ba dana ci moom wala yaqrabu te du ma ko jege fay wala yaqrabu te du ko jege fay sa atito bu ma ko joxee sadiho weenam rada mu nampu sallallahu alayhi wa na wala alimatu saadiya nee na bu ma ko su ma ko joxee weenu mbokkam mi dafay mu daal di ko nampum sallallahu alayhi wa sallam loolu ida mojisaati benn ci kawtéefam yi sallallahu alayhi wa sallam loolu li kamaali adli ngir mat ak maandu fii ci moom wali ma fii yëngal li ci nekk min husnul xuluqi ci rafet jikko yonent yàlla mat gi mat ci maandu ak rafet gi mu rafet jikko moo tax mm, ba muy liir la ko commencé jàngale bëggu nàmp sax weenu waaw mbokkam ma waaw li àndoon ndax moom laa yuusi du lor jaaroo dëkk ndóoram li àndoon war na ndax xalaat la si bi nga xam ne mu ngi nàmp yar doom mu ngi namp maa woo ànd ak moom jaarul dëkk ndóor loo ñeel ko xale bay nàmpaale moom dëkk ndóoram la moo tax du du nàmp weenu xale boobu su ma xaaral mu wax ne wa baniha nampal na doomam achaaw gàtt yi albaanu na seen waaw albaana dégg nga soom yooyu nag moom mooy bani xalimatu dégg nga doomi xalimatu yi la ci namu doomi xalimatu yi la gàtt yi nandal seen sooy hatta suubañ dund bi zaalika ci loolu fii xisbin ci naataanga azimin bi aji màgg moom xalimatu daal nampal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soom bu ko defee nag gàtt yi ñoom it nampal xalimatu ak doomi xalimatu yi seeni soow ba nga xamee ne ñëpp bañ na yonent bi ndax jirim la waaye ñeen ñaame xale yi nàmp yëpp bañ xalimatu ndax ñàkk na yàlla boole leen dégg nga xewal gu rëy juddoo fa asbaat xëy na dégg nga ñoom gàtt su walan di ñàkk soow yaafan di way lottu waam san mu daal di gont maa biyaa nekku de caa in aji ñàkk soow wala aj faaw du caa in aji lapp rek laa wax de xalimatu gàtt mi ba muy xëy ñu ngi ñàkk soow amuñ dara si soow lapp lool waaye ba muy gont fekk na gàtt yi ñu ngi fees dell ak soow amul benn bu ñàkk soow waaw amul benn bu làpp loolu lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaaw maanaaw mooy andoon ak moom axbara xibaar naa ni saati si gàtt bi waaye moom xanam xalimatu mooy gàtt xalimatu radiyallahu anha na ko yàlla gërëm qaala waa ne asbaat mujj na moom gàtt googu euh, dégg nga euh, wala boo xëy na ñoom gàtt yooyu suwalan di ñàkk soow jaafan di lapp wa ñàkk soow foofu moom saqilul misia mooy ku tat di euh, ku diis ak dox min si detil huzaari ngir tat ak ràpp waaw aj faaw lapp nag yellati mooy li nga xam ne la chahma déet ak genes di ca nekk wala muqa dit ak yuur gàtt gu làpp ba amul gërës amul yuur loolu la yoroon ak gàtt yoo xam ne amuñ dara si soow bu ñu doxi dox bu diis la ñuy dox waa axbara xibaar na àndoon ak moom qabla ma ji yi njëkk di ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xaymate a jëm ci xayma moom alima asbaar xëy na xanam haa gàttam ya su walan waaw di ñàkk soow i jaafan di way làpp wa am sat gontu na xëy na wasala ba mu yeggee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xaymataa ci xaymaam alimatu am sat gont na moom halima waqad nazarat wàcc na bi xanam yaa ci gàttam ga quwati ilahiya ci kàttanu yàlla wa nafxata rabbaaniya huppin bii ka jug nga xam ne maa am maa la nga xam ne nii am sat gont na moom halimatu bii ci loolu xanam waa gàttam ya maa biyaa nekkut ca shaayilun aji ñàkk soo wala aj faa wut lottu kulla jaate yëpp simaan yu diis la moo faratu samni waaw luñ bëril diw ñor la xalisatu labani aji bëri soola xaasi li gaayatul moojiza mooy doyab ba mu jëlee yonent rek ci la gàttam yi waaw xamutul bu lapp soow loolu kawteef gu rëy rëy la goo xam ne xew na ci nampak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fay naka quartier fii xaayati maa yakunu ñu ngi si doyob la ñu nekk minal juudi ci coona wala juuy ak xiif waaw way euh, moom fii wasatim ci seen biir fii wasatim seen biir fii xaayati maa yakunu mu ngi si dana ko nekk minal xis bi ci naataange woon neexmat ak xewal quartier ba mu nekk moo fa gën a ñàkk ah léegi nag moo fa gën a riis ban jamono la fa riis jamono joo xam ne ñëpp ngi nekk ci beekoor ak ak i fitna kenn amul dara ñu am ñi sax waaw jamono boobu ñu ngi ci bekkoor moom moom mu nekk ci naataange gàtt mi àll bi amul lu mu sàmm waaye gàtt mi ñoom dañuy waaw sàmm ba rek rek waaw bëri soow benn gàtt làpput loolu kay xam ngeen ne wërsëg woowu feneen la jógee <coughs> kama hiyal aadatu comme ni nga xamee ne lay aada في في سنة كما هي عادة بملني لنا قبل مملني نيم بريد في سنة الخاص بي قسبي سجمونا ناتانجي ما عندك بنو بربو وقت وقت ورق دي علمتو مملني رك جمونا جوني اختي لنك ني جمونا جوني اختي مل أكبر بامين نيوم ني تولشي يمنو في النجوري واتنا نيو بوكو برب نيو loolu kiimaan la hatta ajibu ba ñu yemu xaayatal ajbi doyeb kiimaan waa fa haasi di akbaru mojizaati mooy kawteef gi gën a mag si kawteef yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la bokk su ma xaala tof mu wax radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm ak saba naatal na alaayishu dundu inda faalimatu baada mahlin gannaaw bekoor is xadaa ba mu xëyee li nabi di ñeel yonent bi ak dundu min haa tukkee ci moom dundam naat na gannaaw bu mu nekk nekkoon ci bekkoon moom xalimatu lu tax dundam naat ndax dundam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jógee ci moom te mooy soow mi yonent di dundee ci xalimatu lay jógee loolu waral yàlla naatal dundam moom xalimatu defal ko barke waaw loolu rek am na nu mu jàngale maanaa maanaa ba moom aksaba naat naa nay ci dunda ndaa fu moom ala xaayati faqra ci doyag ñàkkam wa ci dati xaxti sana ak tatak beekoor ak atma xata dégg nga mën na hu ba mu ñëwee ko rek hmm. dégg nga arbaabul dégg nga am waali borom fi juin ñu ngi nekk ci xiif azimun bu aji màgg way moom wax daa moom dong fi wastim seen biir fi xaayati maa yakunu mu ngi ci dab la dana ci nekk mel xis bi si naataanga ma neemata xewal wa dalika loolu bi sababi taxasi ci sababu dundalam bi haa ci eh, taxasi dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi haa ci moom sallallahu alayhi wa sallam alimatu saadiya yàlla naatal na dundam waaw te fekk kat ku ñàkkoon la woon denga taton tatoon beekoor lool dëkk ba yépp tamit nek ci beekoor ba borom alal li sax ñu xif nek nekk ci beekoor waaw mom yàlla may ko natangé gu kenn xamut fu tollu toll lépp ci barke dina gim dundal ci yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yàlla xaa cey loolu minnatan ci xewal manam ndaw xewal gu reey laqad du'ifa ful nañ al ajru tiyaaba ga aleyha ci halimatu min jinsiha ci xeeti lam defal yonent bi wal jazaa ak fay ga lam ko def mooy da koo dundal yàlla moom it dundal ko rek moom it de ba mu dundalee yonentoom ci la ko yàlla dundal waaye nag lam dundalee yonent bi ko ëpp yàlla jox na ko ko kon fulal nañ ko tiyaaba ga ci xeeti lam def rek lañ ko delloo nooy dundal na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sallam yàlla dundal ko fay ko fay gu rëy xawla woo xam jum ne yàlla aa ceeloonu mi ne tan ci xewal maanaa maanaa mooy azamaha ak a màgg mun xewal googu wa ma ak ak rëy mun xewal googu yàlla xewalal wal min minnatu xewal aaw naa fii la allati mooy li nga xam ne mën na xewal na laaw yàlla baa ci moom ala xalimatu ci xalima radiallahu anha li yàlla jox xalimatu moo di xewal fii isa stafaa ba mu ko eh, tànnee nga waaw allahu yàlla taala kawane li irdaani rasul yi ngir mu nampal yonentum sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi boole rek daf koo tànn doona jëme ali asra walis mboolem ñoom jamonoom jamono yëpp yàlla tànn ci kenn alimatu rek la tànn mu war dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fama azamaha ana lu gën a màgg loolu mi ne tan ci xewal mi ne laay bu tukkee si yàlla ala xalimatu ci xalima nit ñëpp yàlla romb leen fi ñoo ne yaay nampal sama yonantu loolu kay xewal la xaala mu ne la xat doy fa ful nañ alaa juru tiyaaba gi alayha ci moom wal jazaa ak fay alaa tilkal min nati ci boobu la xewal waa yuridu dafa namm naa na tilkal min naa na boobu la xewal alati bi nga xam ne si xan màng nañ moom xalimatu ilayha jëm ci moom hiya moom fiiha ci xewal goo moom xalima akbaru moo gën a màgg sax mais saxaabati ci saxaaba ya yàlla jox na ko xewal goo xam ni sax gën naa màgg saxaaba ngir as saxaabatu saxaaba yi innama shaaraku naka bokk nañu ak ñoom naka bokk nañu ak yonent bi fii usri ci jamono jafe-jafe wa yusri ak jamono yomb-yomb wa faraxi ak jamono bégam wa xusnihi ak jamono njàqarem saxaaba yi gaa kenn du ñoom ndax dund nañu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono jafe-jafe ak jamono yombu yombu jamono bu muy bég ak jamono bu muy jàq lépp ñoo nekk ak moom te mus ñoo daw waaye nag wala mu yëkkun nekkul minum du tuggee si ñoom xadaawun ak dund li nashati wujudi ñeel sosog xamam sallallahu alayhi wasallam waaye li nga xam ne moo dundal yonent bi ba yaramam màggee ci kooku moom jógee wuti saaba yi موم عليما لا نيل نكو من غذائي خول دندل يونت بي لنشات وجوده دنگا تي سوسوك واو يونت بي صلى الله عليه وسلم سوسوك حمم موم مو دندل يونت بي بام مانا ماغ فنسبه ما بينها ديغنتي لي نيك سي ديغنتي عليما وحليما وبينهما ديغنتي صحابه في المرتبه دي درجه كنسبه امي dafa mel ni diggante doom alwaalidati bi aji yar li wala di ñeel xale ba fi tarbiya ci yar gim yar la ñeel ko wa ixzaaya dundal gim dundal la ñeel ko xataa saara ba mujj rajulan di góor yaay ju yar doomam nampal ko ba mujj di góor kooku nun mel maa man ànd ki nga xam ne asan na rafetal na jëm ci góor googu tuula xayaat ci diir dundam di zaalikal wala di ñeel boobu la xale yaay yar doomam ba màgg nampal ko waaw ak ku toppatoo doom jooju ànd ak moom gannaaw bu màggee dundam yëpp di ko dimbale ñaar ñooñu ku nekk dimbale na xalawe ga waa dimbale na góor googu waa waaye nag kenn du yaay rek laa wax de dégg nga ndax falanis ba da askan bay na hoo di nekk diggante waa jooju bay na ummi ak diggante yaay ja bu dutoo yaay ji moom yaramam du mën a dund sax dund gim dund waaw kooku ci yaramu yaay ji la jógee fol umu yaay martabatuha martabaam darajaam akbaru moo gën a màgg wa azum moo gën a foor alimatu nag yaa yonantu la kon darajaam mooy gën a màgg foofu darajaay saxaaba yi mu ne sallallahu alayhi wa sallam waqad axbara xibaar na subhaanahu tudd na masalam wa taala kawe na am na ne moom laa diu du sànq ajal mosanina tiyaabaay way rafetal yi yàlla du sànq mukk tiyaabaay ñay rafetal وإحسانها أغرفتلم إليه جمسيون تبي صلى الله عليه وسلم أكبر موغن مغ من إحسان كل من سرفتل كيبك نقمنا أحسن رفتلنا إليه جمسيون تبي صلى الله عليه وسلم رفتل جم دف جميع جميسيون على محمد صلى الله عليه وسلم موم حليمتهم موغن مغ مبارم ku mos a rafetal بيكو غن مغ bi دوب ko maanaam ful nañ laa ñeel ko àjjuru tiyaaba gi anda laa ci yàlla wal jizaa fay gi ana laa naka yàlla taala kawe na ana taawa jox na ko min xam ne maa la nga xam ne laa yoo fu duñ xam loo ñeel ko àddun doyo yàlla jox na ko ci ngëneelam xewal goo xam ne waaw kenn xamut doyam nun toll woo moom aljizaa mooy fay wal millatu xewal alati gi nga xam ne mën na xewal na laa yàlla biyaa ci moom ala xalqii ci jaamam yi hiya moom al amaalu saaliha mooy jëf yu baax alati gi nga xam ne ataahum jox na leen iyaa moom jëf yooyu xewal gi yàlla di xewal jaam mooy jëf ju baax juñ ko jox baasa bil xismati ilaahiya ci kem séddale yàlla ni yàlla séddale rek ku nekk loolu lay am si jëf yu baax jëf yu baax yi wërsëg la comme wërsëg àdduna kenn ku nekk rek la yàlla dogaloon ci yow ci wërsëg mba loolu ngay am waaye kenn ku nekk it la yàlla la yàlla wërsëgoon ci ay jëf yu baax loolu rek nga mën a am yàlla yàlla yokk suñu jëf yu baax yi wal jazaa ak fayaale yaa ci moom min azamin mi ngi bokk si xewal yi gën a mag lu baax ba pare yàlla fay la ci loolu xewal la ndax jëf boppam xewal la ba jëf ji nekkee xewal la yow yow defoo lenn loolu yàlla faye daf laa xewalal rek فالمنة قولك منو تكنس يلا سبحان الله مثلا وتعالى كمان في العمر الثالث يرجو باخ الذي بين قميص توجب ورلنا الجزاء فين يلا لم نجيك خول موي جيف جو باخ جملا may nga def ko ba pare nag fay la ca هو هو fay aladi gi nga من من اللي لا يوم بوقتي قول يا الله تعالى كولا قول الجل يا الله قول النرف لبا قول بهم لا واي قول الجل يا الله قول ال فيا لجف جبا جوجو لبا لوليت بين قول لا فالكل لب من تكين يا الله من تندي قول سبحانه وتعالى سلم وتعالى كولا كم جام نقمنا دفلنا لك يا الله فيا جف جي قول الله waaye fay gi it xéwlu bu am la moo tax jaam mënu sant yàlla mukk ba dajal ko laakin waaye nag fi fi aalamil xikma waaw ci aalamu xikmatu yusamma dañ tudd yaa abdu jaam bi amilan mu aji jëf wal jazaaw fay alayha ci jaam bi sawaaban mu di yool ala tariq muawada ci yoonu weccoo weccoo mooy dafa defal yàlla lu baax rek yàlla defal ko moom ak fay muy teraanga lan mooy alamul xikma mooy alam bi nga xam ne am na lu ci yàlla na ma wane moo tax mu doxalee ni mu doxalee loolu alamul xikma alamul machi anak mooy lan mooy alam bi nga xam ne waaw la la a xew dëgg-dëgg rek loolu la am alam bi nga xam ne nii lépp xaqu la mën ngaa xikmatu mooy sariatu مجياتو ما حقيقتو يلا نك دافاي واخا سي نيار ييب ليغ ليغي يلا واخا سي عالم الحكمه سنتان دار با بري تا فك تشوبرم نم لولو لول دو ام واي لو تخ مو سنتان كو نك موي امنا حكمتو غوم بوغ وني ndax bañ gëñel ni bañ leen ñi nangu lu bari dina ci feñé lolé yalla mo hikma ni ko ma arsalna min na binduma yonent ñu topp ko yi kat am na ñuñ mooy baray leen safar kon kay loolu alamul xitaabul xikma la ci xikmatum la dëgg-dëgg lam bëgg mooy ñu topp yonent yi waaye lam bëgg dëgg-dëgg mooy ñenn ñi topp ko ñenn ñi mooy ko bu waxee nag yónnu yonent lu ma ñu topp ko mooy dama dogal ne ku ko topp rek ma mere la ku ko topp nag di sama soppe waaw ñàkk topp gi mu dogal noonu waaw am na hikmatu bu rëy bu ci nekk <coughs> yàlla wax ne liman shaa minkum an yastaqima kum neex na jub kooku xitaabul xikma la yàlla may na doomu aadama xel ba mën a xalaat lu baax te di ko def xalaat lu bon te di ko moytu waaye dëgg-dëgg la coobare yàlla mooy doomu aadama bi la muy xalaat sax yàlla ko def ci xelam ba pare moo tax mu waxee ci waaye ci xitaabul machiatu nag ne wa maa tashaauna illaa an yashaa allah soob lu mooy mu soob yàlla mi borom bindee fi ñaari xitaab yooyu bokkuñ alquran dana waxe ñaari yëpp dégg wax na ne maa asaabaka min xasanatin fa min allahi wa maa asaabaka min sayyiatin fa min nafsika loolu jot ci bon ci sa bopp la jógee sa bakkan boobu lu la jot waaw ci lu baax nag ci yàlla la jógee waxaa ne qul kullun min indillaahi waxal ne lépp ci yàlla la jógee ñoom xam nañ ñaari xitaab yooyu bu nekk lu ko tax a jóg ñaari xitaab yooyu nag mënoo ci sànni benn ndax ñaari yëpp melo yàlla la da ngay nangu ñaari yëpp rek daal am jàmm wa zaalika loolu nag mooy jëf fay fi bisaatil xikmati ci laytaayu xikma la laa fi bisaatil machia waaye nekkul ci laytaayu coobare yàlla maanaam xaqiqa wal machiatu coobare yàlla ba nekk mooy ànd na kulla na lépp minu si yàlla alaamulu jëf ja wal jazaa ak fay ji ci yàlla jugee wal jazaa fay gi ci jëf ak jëf ji yëpp minatun xewal la min laay taala kawanaa ra ibaadi ci jaamam قال وانا في ملة عملي في قبل الجف قال من يمننا درن واو نيا خاليك تيو انا اسلمو انا جيبول نين نيوم جيبولو جين جيبولو دافا مل نين سي دافا القول فك نيوم سن بوبو نين دافا القول قل وخلا تمنو ولن نيا خالي تي من اسلامكم سن جيبولو بل في نيك الله يالا يمنو درن نيا خاليكم تيين انا هداكم نجبلن لين الايمان نيل غم يالا ان كنتم نك نين سارقين دي وي دغو kon yéen defu leen dara jébbalu ngeen jébbalu xewal ak yàlla la gu leen yàlla defal ah foofu foofu yàlla waxee na fa ca xitaabul masiya wane ne seen lislaam gi sax xewal la gu yàlla defal dégg nga jub gi ngeen jub xewal la gu leen yàlla defal kon it fay ga ci yàlla fay loolu it beneen la rek laa wax de. waxaala wane man yashaa ku soob naa laaw yàlla yu dilhu dana ko réeral wa man yashaa kum soob yaj'alu mu def ko ala siraatin ci yoon wal mustaqim bàyyi jub loolay mashiyaatu loolay coobareem kum neex mu jub kum neex mu waaw mu réer moo tax ñenn ñi jub nañ ñenn ñi réer lii lay mashiyaatoom mooy coobareem jub nag yàlla daf ko àndalee xewal muy jamaal waaye réer ñaareel dafay ànd mbugal loolay jalaalam yàlla jamaal ak jalaalam la xam nag foofu ñaari feeñ ku am jamaal rek te amul jalaal matut ku jalaal rek muy ak màggaay te amul jamaal kooku matut kooku moom ku soxor la yàlla ñaar yëpp la dajale nag ndax moom ku mat la foo am kenn ku nekk rek looy jël ci ñaar yooyu benn ci ñaar yooyu jamaal ga wala jalaal ga léegi xitaabul masiya ليالا وقت القران نوما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني بن ما جن اك نيت لوما ني جامو لول خطاب الحكمه لا خطاب الحكمه لا سي الله واخه دا نام لو خامني دون كو ديف مان نانكو موي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني بن ما جن اك نيت لوما ني جامو امنا ньо خامني جامو كون دولول موي مشياتهم تشوبرم waaye loolu xitaabul xikmatu la wax gi ko wax am na xikmatu gu bëri gu ciy feeñee ndax dana am ñoo xam ne ni duñ ko def rek laa ah, wax de xitaabul xikmatu daal saa ci yàlla waxee mu ngi bëgg a wax ne lii laa santaane waaye nag am na ñoo xam ne duñ ko def ñàkk def googu ak ñi koy def loolu ci yàlla feeñalee xikmatu bu mu bëgg feeñal xitaabul masiyaatu nag bu ci yàlla waxee mooy lii mooy am force su boobaa loolu mooy am loolu seen différence. وقال وانا صلى الله عليه وسلم في عقل الجنة في عقل الجنة فروانا نجف أكفاي يب كيقول يا الله نلا يدخل دودوغا عادكم كنس نلا يدخل دودوغل عادكم كنس ينام ولو جفهم الجنة على الجنة ينتبه لنا مكنس ينكو أخم نجف مكوي دودوغل على الجنة قالوا نينك ولا أنت بتشي أو يا رسول الله ينتبه لنا قالوا من ولا أنا بتشي من من صح سمع جف من ما دودوغل على الجنة إلى يتغمدني لوم مور ما الله يلا برحمة بفضل رحمتي waaw ci ngëneelu yërmandeem man sax sama jëf mënul maa dugal aljana lu ma yàlla xiir ma ci yërmandeem bu dul yërmande yàlla daal man mi mënul maa dugal aljana rek laa wax de ah lii loolu loolu dafay war ne fay du jëf jee waral waaye fay gi dëgg-dëgg xewal ak yàlla la aljana daal yàlla ay xol ku ko neex mu dugal ko fa yàlla ñu ci dugal fa dalla tegtal naa dal xadis bi la xadis an aljanata ne aljana minatun xewal la min minali laayi mu bokk ci xewal yàlla yi ala ibaadi ci xewal yàlla ala ibaadi ci jaamam ala ibaadi ci jaamam aljana xewal la goo xam ne muy bokk ci xewal yi yàlla xewalee jaamam laa yu sol du yegg ilay xaa jëm ci aljana dégg nga duñ ci yegg moom aljana bila amali ci jëf du jëf la fa bal li fi nekk bi fàttali ci ngëneelam subhaanahu tudd na ma sellam wa taala kawe na yàlla rek ci lay nit ñi jëfee lu baax ci ngëneelu yàlla ci lay nit ñi duggee aljana wa haada lii xitaabun waa waxante la alamu xitaabu alamul machia mooy waxanteeg alamu coob rek yàlla ga mooy yàlla léegi-léegi mu waxee ci lisaanu haqiqa ci làmmañu haqiqa léegi-léegi mu waxee ci lisaanu hikmatu waaw ci làmmañu hikmatu hikmatu mooy lam bëgg mu feeñ lisaan gi dama ko wax rek waaye nag mun ci ne yàlla dafa am làmmañ comme ñun déedéet yéesalu dana seede loo ñeel ko xaw loo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne hal tadruna ndax xam ngeen maa fi yeddi li nekk sama loxo xaaji bi yonentu mos naa téye ci loxoom loxoom rek laa wax de la mos a téye loolu xam ngeen ne téeg leneen la ndax la xam ngeen nekk sama loxo bi xaaral ñu ne ko allahu yàlla wa rasul ak yonentu mu aala mu ñoo gën a xam xaaral mu ne haza lii kitaabun téere la min rabbil alamin bu jugee ci borom mi ndefi fii nekk na ci asmaa wa ahli jannati tur wa aljana wa asmaa wa abaayim ak tur seeni baay wa qabaayim ak seeni giir dégg nga su ma xotima kaste nañ leen ala aqirim ba ca ku mujj ci ñoom ñoom ñëpp bind nañ leen kaste leen fii maanaam tëj leen fii laa yusaaru duñ yokk fiim ci ñoom seewun dara wala yunqasu yunqasu duñ wàññi minum ci ñoom seewun dara te boobu xam ngeen ne man ak yéen ñëpp juddooguñ tu wax nag saxaaba yi ndax xam ngeen lu nekk sama loxo ñu ne yàlla ak yonentu ma xam mu ne téere la boo xam ne ci yàlla la jógee mbooleem ku war a dugg safara fii nekk na asmaa ali naari turu ñooñ safara déedéet turu ñooñ aljana mboolem ko war a dugg aljana turu ma ngi fi turu baa ma ngi fi ak kuréel gam ñoom ñëpp bind nañ leen fi bañ jeex duñ ci yokkati dara duñ ci wàññeeti dara lii loolu loolu mooy nañu war a dugg aljana dugg nañu aljana bu yàgg yàlla incha allah boole waaye ñoo war ndax téere boo xam ne mboolem turi turi ñooñ aljana mu ci biir téere boobu xam nga ne téere bu ngand bu war a fees kër la war a doon waaye kàttanu yàlla ëpp na foofu moo tax yàlla kenn du ko natt ci xel ëpp na xel ab téere boobu lu muy rëy rëy yonentu tee na ko ci loxoom sallallahu alayhi yàlla am na kàttan ci lu ne moo tax ah xam nga ne mbir mi kon paase na su fekkoon ne aljana fay mooy jëf ju baax mooy tax nit am ko da ngay jëf-jëf ju baax ba pare ñu door laa boole ci waa aljana boole la ci waa sawara waaye balaa jëf ji di feeñ yow yow bool nañ la fañ la classe fañ la bu yàgg loolu dafay war na jëf ju baax xewal lagul yàlla xewalal rek waaye aljana it yàlla xewalal kooku jamaalam la ñaar yëpp jamaalam la jëf ji dafay ànd ak jamaal rek waaye jëf ji jiitu na sa sa sa sa ah raglu na de dégg nga su ko defee xaala mu ne waal ta duroon ndax da ngeen xam fi yeddi lu nekk sama loxo xaaji bi xaalu saaba yi ne allahu yàlla wa rasulu ak yonentum alamu ñoo gën a ñoo gën a xam xaala mu ne haza lii kitaabun téere la min rabbil alamin bu jógee ci borom mbindeefi fii nekk na si asmaa ahli naari tur waa safara واسما وابای مکسن تربای و خبایل مکسن گیر سوما ختما کسان لینا لآخرین بچه کو مجیت نیام لا یزار دن یا کفیم تیم شه اون داره ولی این قصد دن وانی میم تیم شه اون داره یون تو حال لهم نه نکم نه نکس مال خب بیینو که یالا که یون تو مگه نکم من تو رو آسفرایلا که پرتون را دوگو سفرا بین نیل چیکه بی بین سطور باي بچه کو مجی کو می کورم مجی دوگو سفرا kenn du ci manqué diw doomi diw diw doomi diw diw doomi diw kon kay xam ngeen ne waa safara dugg nañ safara bu yàgg yàlla nañ si yàlla musal ah mbir mi raglu na de te yonentu daf ne yàlla du ci wàññi du ci yokk kon wax jiñ la wax ne boo defee nangam dugg aljana boo defee nangam mucc si safara loolu xitaabul hikmatu la dégg nga xaalu saxaaba yi ne fa fii man amalu ana kon lu ñuy jëfee lan moo a ñuy jëf ndax mbir yi pare na bu yàgg classé nañ dossier yi ah xaalu yonent ne inamaloo eh, jëf leen rek ndax jëf ji si ndogal yi la bokk jëf ji xikmatu la am na lu ci yàlla bëgg a feeñal fa kulun kenn ku nekk ci mu yasurun ku yombal la li maa xuliqa ñeel la nga xam ne bind nañ ko loo ñeel ko li tax yàlla bind la loolu daf lay yombalal yonentu boo xoolee feneen la wax ak wax ji nag dafay mel nii mooy kenn ku nekk boo dee nitu aljana nga yàlla daf lay may ngay def jëf-jëfu aljana loolu lay niru boo dee nitu safara yàlla daf lay may ngay jëf-jëfi safara loolu lay niru fekk wax ji dëgg-dëgg mooy kenn ku nekk la yàlla mooñee ci yow loolu rek ngay def maanaam maanaam yéen mënu leen ñàkk jëf sax leen bëgg a wax lim leen bëgg a wax mooy dogal gi yàlla dogal ñii ñooy waa aljana faaleetuma luñ mën a def ñii ñooy waa safara faaleetuma luñ mën a def jeex na tàkk dossier jeex na loolu kàttanu yàlla la leen ci dara waaye jëf ji it mënu leen koo baax ku nekk la yàlla dogal ci yow rek nga mën a def fa kul mu yasrun li maa xuliqa la la tax ñu bind la muy sa mission ci àdduna boo ñëwee ci loolu rek ngay nekk yàlla ngoogu moo tax ma ne leen yàlla bindul leen pour xewal leen yéen jaam yi yàlla bindul leen pour mbugal leen yéen jaam yi yàlla am na leneen loo xam ne moo tax mu bind jaam yi sallallahu waaye nag teewu def leen rek ñaareel ña nar a dugg aljana jëfi aljana daf leen yomb ña a dugg safara nag jëfi safara def leen yomb waaye léegi-léegi mu safaanoo ndax yàlla bañ na ko ko takk ci xel léegi-léegi jaam jaamu yàlla ba diggante mag aljana benn xas bu rek ci des mu dee dugg aljana yàlla natt ko mu mujjee lu bon duggu sawara yàlla nañ si yàlla musal ndax lan ndax dafa bokkoon ci kayit bi nga xam ne ni si ñooñ safara lañ bokk waaye léegi-léegi jaam def lu bon def lu bon def lu bon ba digganteem ak safara lu toll ni xase rek moo ci des dee dugg safara yàlla dimbale ko fekk ndogal li jiitu na ci moom mu def lu baax dee dugg aljana moo tax nit yàlla yi daan wax naan barina na soppe bi yàlla bu nekk ci mooy yàlla waaye bëri na noonu yàlla bu nekk ci topp yàlla maanaam bëri na koo xam ne ma ngi mooy yàlla te mu jëm aljana la soppeeb yàlla la waaye bëri na koo xam ne ma topp yàlla ba ñëpp yem ko te mu jëm sawara rek parce que noonu yàlla la mbiri jeex waaye jëf leen rek jëf ji moom mënu leen ñàkk jëf wakka saa nag ni xawloo wax leen ci bi sallallahu alayhi maa min nafsin amul benn bakkan man fuusatin buñ buy nooy illaa waqat wañ na lu may ràññale nañ makaana barabam min aljannati ci aljana wi naari wala safara amul benn bakkan buy nooy rek yàlla pare na ci kii moom ki fii mooy këram aljana la wala safara mooy këram moo tax dalal leen xel yi te jaamu yàlla rek te nag ngeen def lu ngeen man jaamu leen yàlla te dalal xel xam ne yàlla moom dogal na li muy dogal ci jaam bi ba pare ñooñu aljana danañ dugg aljana ñooñ safara danañ dugg sawara ah loolu nag mooy coobare yàlla yàlla kenn du ko diingat ndax li ko tax a jug moo ko tax a jug moom yaa fi jàpp na nag yow yaa tax a jug yàlla waaye yàlla moom xam na lu ko tax a jug waa azali kullooloo lépp xitaabu alamul machia mooy mooy xita mooy wax alamul machia ga alamul machia moom la war a xew rek lay wax la am rek lay wax waaye xikmatu moom danay wax loo xam ne nii moom mën naa ñàkk am da koy wax ba pare xam ñu ko def xam ñu ko ñàkk def lii nag lépp xamal ne pay baa ngi waxe yàllaa ngi waxe ci alamul machiatu maanaam ci xaqiqatu waaw ci alamul hikma moom la fa yàlla waxee foofu moom xawloo mooy waxam wa ne wa tilkal janatu boobu la aljana alati mooy li nga xam ne uristumuha doon loo nañ leen ko bi maa kuntum si sababu la ngeen nekkoon taamaloon na ko jëf kooku ci àluma hikmatu la waxee ne la ngeen doon jëf moo tax ñu doon leen aljana waaye fekk aljana gi moom moo jiitu moo jiitu jëf ya waaw waaye nag ba nga xamee ne yàlla dogal na aljana ci yow ba pare dafa fekkoon ni dogal na ay jëf yoo xam ne da nga ko def ne jëf sàngam mom ngay def nga wara nek nitu aljana waaye nak bo xoolee ci haqiqatul amri deug deug dëgg mbir ma jëf ji de nga ak duggu aljana gi yeb bala ngay commencer jef la am mom waye ca hikmatu nak dogal na ne sa jef sangam soko defé moy waral nga wara bok ci ñoon aljana waye nak force yow ci ñoon aljana nga bok force yi jëf ji dang ko jef yow lo ci don sa jef ji mo la may aljana mooy la dara waaye boo xoolee ci xikmatu moo la may aljana loolu sariatu la tegginu sariat la sariat lépp teggin la rek yàlla nañu yàlla may aljana may ñu yërmandeem may ñu jëmmam ja wax xawloo wax yàlla subhaanahu tudd ma seen wa taala kawe na kulu lekk leen washrabu naan leen xaniyaan ngeen way ndokk bi ma aslabtum si sababu la ngeen jiital fi ayaamil xaaliya ci jamono yu wéy ya ndax jiital ngeen fa coona ak jëf yu baax yaani la mu nammu lam nammu mu ne amaali saalihaat si jëf yu baax min amaali saalihaat yi jëf yu baax yi ngeen jiital moo tax ngeen dugg aljana fekk yàlla bind na ne aljana nga jëm balaa ngay jëf-jëf yooyu sax kon ñaari xitaab yi bokkuñ alquran nak ni lay waxe ku déggul nak dafa yaakaar na ñaari wax yi dafa am wuté fekk amul wuté kële dafa wax ci haqiqatu bi wax ci sariatu rek sariatu moom jëf mo jitu fay haqiqatu nak mom dara lépp ci yàlla rek la jóge min laayi la laayi li laayi fi laayi fal xitaabu ñaari wax yi kulloo yëpp sax wér la ñépp ñaar yëpp gëmal lu wér lay zan kon wal masiatu coobare yàlla ak xikmatoom wal xikmatu sifataan ñaar melo lañ saabitaan yu sax li laa ñeel yàlla a imaanu gëm bi ci yàlla si ñaari melo yëpp dañuy gëm xaqiqatoom gëm lam rëdd si sariatu ndax leen lu nekk rek am na lam ci bëgg wane waaye la nga xam ne ni moom mooy dëgg-dëgg koo koy masiatoom xaqiqatoom moo tax lam fa wax rek am waaw shariatum nag teggin la goo xam ne am na xikmatu maanaam am na njëriñ lim ci bëgg a feeñal moo tax mu tëralee ko noonu waaye du lom fa wax forcément am yàlla nee na bi nu ma nit ak jinne lu ma ñu jaamoo su fekkoon looloo tax mu bind leen foofu foofu ñëpp jaamu ko waaye am na ñu koy mooy yónni ma yónent yi lu ma ñu topp ma lu ma ñu topp leen bu doon loolu foofu ñëpp topp na ñuy mooy yónentu waaw waaye la nga xam ne ni moom mooy masiatu moom lam ci wax loolu kay am subhanahu tudd na ma sellan wa taala kawe na laa sabila amuñ yoon ñun jaami li na fi waahidin pour dàq benn minu maa si ñaari xitaab yooyu ñaari wax yooyu ñun amuñ dura dàq ci benn luñ mën def rek mooy nangu ñaar yëpp ndax ñaar yëpp wax yàlla la xitaabul hikmatu mooy shariatu xitaabul masiatu mooy xaqiqatu lu yàlla wax ci ma machia nag foofu loolu rek am ndax loolu dëgg te boo xoolee da ngay gis ne loolu lépp si yàlla la jógee dellu ci yàlla lu yàlla wax ci xitaabul xikmatu nag kooku moom seeri rek la dégg nga dana am jaam yàlla tàggat ñu topp ko ndax am xikmatu mooy njëriñ lu yàlla bëgg a feeñal am jaam yàlla nattu ndax bëgg a feeñal ci ñoom mbugalam ñu mooy ko ndax mbugal googu mën a feeñ ci ñoom waaw إن أريد الإسلام استعنت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته